ndeysaan doomu mbër jàngir bële yàgg yàgg des la ñam ndeysaan kookoy Fils Diallo baayam lu ne def na ko ci làmb waaye bëriwul arène nationale baayam lu ne def na ko ci làmb waaye musta xaftaanam musta tooy arène nationale ndeysaan moo ngi noonu bàkku Fils de baayam ndeysaan xel dem na ci lu bari xel dem na bis baayam di bàkku xel dem na Essa Demba Diop ba baayam daane ndeysaan tubarkalla bis baa ngi noonu Fils de Zal Lo nga bàgg di ñëw ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan ku jur doom deewoo Fils de Zal Lo ndeysaan ndeysaan ndeysaan alaaji naar xale bi andi na cosaan dëgg la alaaji naar xale bi andi na cosaan ndeysaan alaaji naar xanaa sa xel dem na si kala bi baayam di dee bëre kii xam si mooy Mohamed Ali dëgg la laa ilaaha illallaah xoola xale bi mbooloo mi andi naar andi na mbooloo def na la baayam daan def naan joomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la ñam tuuroona tuuroona saafara sa waaye alaaji naar xale bi mi dajal muy caatu muy caatu ngewal ah alaaji naar kookoo ngeen moo yoof ànd ak Malick Niang ànd ak ki nga xam ne mooy Modja ànd ak Dumbul waaye fii sa sàlloo mi koo xool xam ne am na benn xeetu bëre boo xam ne mi ngi koy bëre muy bëre bu grand fiir boo xam ne koy def na ko caatu ngewal bàyyi xel ndeysaan ne ko caatu ngeewal bàyyi xel ndax ku tollu sa bàyyi boo ñëwee ci làmb ndeysaan ndeysaan alaaj naa ñu bàyyi xale bi mu duus nan ko bàyyi mu duus ngeen indi. ndeysaan lamb ju rëy ngi ni tey Fils de Zale Lo caatu ngéwél bu Yoff waat na ci biir géew bi arbitre bi waat na ci biir géew bi arbitre bi sifle ñaari mbëri ña lewaatoo ñaari mbëri ña ngay lewaatoo lan mooy am sànq boo gisee rek koo mu dem ardu ñëwaat ña lewaatoo ñaari mbëri ña ngay lewaatoo ñaari mbëri ña ngay lewaatoo xeex nañ ñaari mbër yi xeex nañ départ laa ilaha illallah waaw waaw ma leen de fàttali ne leen grand combat bi dox ci ki nga xam si ne nii moom mooy caatu ngéwél ak fils de Sallo mooy combat bu rëy di benn fan ci weeru février atum 2020 fii ci arène nationale bi ci Pikine sbtmedia point comme ndeysaan ñaari mbëri ñi ngay lewaatoo ba tey dara amagut ñaari mbëri ña ngay lewaatoo ñaari mbëri ña ngay lewaatoo ñaari mbëri ña ngay lewaatoo ah na dooraat na génn ma ña ngay la may am xeex nañ dajewaat nañ ko attention làmb ji boo moytul mën naa am door mu daanu de laa ilaha illallah door na ko ne na ko yóbbu na ko ardo gémé ngi naacc laa ilaha illallah lamb ji mën naa jeexee kaaw de borom bi bu baax a baax waajal nañ ko nuñ ko war a waaj préparé euh, ñëw nañu tamit yaakaar ci ndam bu rëy dem ñibbi Joof Yoor waaw. tey tey combat bi day gaaw wala lu mu demee noonu. non combat lu suñu borom tudd rek mooy am quoi mais ñun gaaw gaaw la ñu gëm gaaw te neex ñu daan dem ñibbi. Ah. waaw. mais de mais sa adversaire waxul lool de. sama adversaire wax la mun man jëf laa. mu nga daanu. sama adversaire wax la mun man jëf laa mun taalibe sëñ Bamba laa billaahi jëf kese laa mun billaahi. jaajëf ñu ngi lay ayca mbokk yi ma ngay dóor mi ngay dóor ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi dóorante combat bu neex la ñaari xale yu yam naatangoo di ay ndaanaan di ay champion kenn ki moo tent bopp ba jàppante nañ mu ngi koy puus ndeysaan ndeysaan ñaar ñu tolloo doole nag nag ku juum da ngay daanu ndeysaan ña nga ca ñi ngi ñi ngi bëre calcul kenn ku ci nekk a ngi déglu moroomam mbokk yi ndeysaan ña ngay waaxu jëme saako ya ndaanay dañ lay wax naan saako yi du fekk ji kenn dañ koy fekk ji ndeysaan ña ngay bëre xam naa ne bëre calculé nag kenn bëgg du juum mu ngay dóor ci suuf may tuur sama xarit ndeysaan moytul sóoraaleel say tànk ndeysaan mën nga sóoraaleel say tànk ndeysaan mel na ni day bëgg a dem daa bëgg dem action ah hey ndeysaan bëre technique la ma ne bëre technique lañ koy bëre ndeysaan mel na ni da ko bal laa ilaaha illallah ay waay bëre metti na bëre metti na dóor na ko dóor na ko ca kaw ndeysaan ah booy du sa teere bopp booy bëre doo wut lu lay gêner ndeysaan maa ngi nuyu bu baax sama xarit maam Thierno Ndiaye borom complexe Serigne Dame Diouf Lambaye ndeysaan ah mbokk ndeyum Lamine Gueye RV ah arbitre baa ngi leen di jox consigne ah, dem na mi ngi dem ndeysaan ndeysaan bi bal la Mass Ndiaye bi bal la <laughs> eh, Samba cey lamb cey lamb ndeysaan papa ay papa Ndiaye ay dem bu lañuy dégg ca way jigéenu kam ndeysaan ndeysaan combat bi yàgg na nag mi ngi bëgg a yàgg newoon naa leen combat calcul lay doon ñaari xale yu yem naata ngoolanu waaye ñoom ñaar ñëpp liggéey nag ndeysaan waaye maa ngi ziar bu baax sama caméraman Alaaji Maas Alaaji Maas Ndiaye maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax ndeysaan waaye maa ngi nuyu ndey bu baax a baax borom Taïba njaay borom Fandène borom Thiawane ndeysaan xale baa ngi noonu maa ngi koy nuyu bu baax eh ndeysaan ah gis naa fi gal gal gal laa ilaaha illallah eh, eh, eh waay Samba ndeysaan maa ngi seen promoteur bu mag bi Pape Abdou Fall. arbitre àtte na arbitre àtte na jox na leen ay ay ay avertissement verbal ndeysaan léewtawaat nañu ñu ngi léewtawaat mel na ni léewtoo bi dafa gën a bar nag mel na ni léewtoo bi dafa gën a bar dagg nañu léewtoo bi ndeysaan ndeysaan ah door na ko ndeysaan moytul kaawo moytu gaaw jël na ko jël na ko àgg na suuf moytul moytul kat appi ndeysaan waaye téye na ca ngemb la xale yu bëri mën a bëri leen nag ah, jël na ko ah daan ko laa ilaaha illallaah oh ndeysaan daan ko jël bu am de mooy d'abord damay kontaan parce que arène national bi tey Père Mbaye jaar na fi amul maam góor gi Ndiaye jaar nañ fi amul Tafa Guèye jaar nañ fi amul suñu génération jaar fi amul tey ñu doon rêvé ñun am arène national bëri ci amuñu chance boobu ma dem ba bàyyi bëre sama doom tey di ci bëri et li lii nekk premier grand combat ma tombek arène national bi may kontaan trop ci di ñaan yàlla rek yàlla may ko ndam lu set guy mu nekk souvenir boo xam ne du ko fàtte ba keramay dee ay caaj yi nekkoon ci muy bëre def na ko ci doomam. waaw xale bi boo xoolee ay qualité bëreem bari na trop mën na bëre trop waaye nag man ak moom ñu façon bu ñu bëree mais mën na bëre trop euh, dañu koy rectifier rek parce que am na ay erreur yu nekk ci moom mais dañ koy rectifier xale bi muy bëreel nag xale bu mën bëre la muy taatu ngewel parce que seetaan naa ay combat am du tey seetaan ay combat mu nekk ñaari xale yu mën bëre mais mbër boo gis nag am na ay fort am na ay faiblesse. faiblesse xale bi daal dina jéem a jaar foofu pour am ndam incha allah. wax nga ko sànq arène nationale ñu def ko wax naa ko sànq bi may reporté ma ni ma ma ni xafta xaftaanam tooyu fi waaye doomam la fi xaftaanam tooy loolu ba nga gisee loo yëg. xanaa kontaan mooy li ma la wax léegi nii rek dafa mel ni tey man maa fi bëre parce que deret bi benn la kontaan nañ trop tey yan ñaan yàlla rek yàlla may ko ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed jërëjëf merci. mbokk yi ñu ngi war a dem ci quatrième combat de la soirée ci diggante ki nga xamante ni mooy Lynx bokk école de lutte Fallaye Baldé ngi seen doonu Jules Baldé ci biir ndeysaan nga xamante ne waaye kii di Fallaye a ngi ci ginnaawam waaye nag sama xel dem na ci Xaadim Mbeng borom lépp pikin la nga xamante ne ni xale bi rakku Issa Mané la ku ne xam ne def na lu lay ci làmb moo nekk équipe bul faale ndeysaan di ndaanaan la tey nag combat bu combat bu neex la nar a tey ndax nag nday loo wax ci làmb ji <laughs> waaw tubaarkalla macha allah làmb yu nar a neex la nar a doon tey làmb ji ala daw waa lii daf may fàttali diggante Balla Gaye ak Modou Lo. ndeysaan waa CNG ngi noonu Thierno Ka ngi noonu ñu leen di nuyu ñoom ñëpp ndeysaan Papa ay dem boobu la ci way waaye Jules Baldé mi ngi koy jox consigne mujj yi moom lengs ñaari war mbaam ñaari mbër yi rek ñoo des ci biir géew bi ak arbitiri yi ñi doon topp dem nañu ndeysaan ñoom ñëpp ñoom ñëpp dem nañu ndeysaan arbitre baa ngi leen di jox dernière consigne yi nee leen leen sifflé moo leen di boole moo leen di tàqale ndeysaan mi ngi mi ngi mi ngi constaté ak yeneen arbitre yi sifflé ba dal na sifflé ba dal na ñaari xale yaa ngay léewtoo lang si mi ngay demee góos ña ngay léewtoo di damante baaraam lang si looy def na ndeysaan ah xale bi jël na ko xale bi jël na ko dara amagul am na dara arbitre ñu déglu arbitre ñu déglu arbitre nanu déglu arbitre bi oh leng daanu na leng si daanu na leng daanu na ndeysaan daanu na maas lañ di daan. Géant Balla daan na ko jël bu rëy. oh. Géant daan na ko jël bu rëy alaaji naar. Géant Balla daan na ko. parce que lim ko may daa bëri. dafa juum wax naa ko sànq. bi sàcc ko suñu li wax ko ca suuf. ndeysaan mu daan def carte d'appui. moo tax looy def lu wóor loolu laa ko wax léegi. wallaay ndeysaan alaaji naar. ndeysaan. alaaji naar xale yi dañoo mën a bëri am na foo xam ne bu la fa àggee làmb ji jeex. bu la fa ko. alaaji naar bu la fa àggee làmb ji jeex. oxo leng si daanu na. te te leng si daanu na ba écurie Fallaye ma leen di wax ne man ngeen kon ngeen abonné seen seen youtube sbt media point com waaye man ngeen ànd ñun ci li nga xam ne mooy 3w sbt media point com laay laay la allah ji naar xale bi daan na ko jël bu rëy waay daan na ko jël bu rëy dafa yaa jaaxaane combat am nag wallaay ndeysaan mbir mi da ngay respecté si adversaire demal nga defar waat ñëwaat loolu la rek loolu la demal nga defaru ñëwaat demal defaru ñëwaat leng si demal defaru ñëwaat kii la daan sa morom la war laa daan jàngil bëre yàgg yàgg des la ñam wax naa ko léegi sa baay ma ne lan nga jox sa sa doom. waaw waaw waaw sama baba wa. moom ñu ngi waaw waaw lépp jox ko waaw. macha xam nga ñu ngi waaj baax di ñaan yàlla suñu borom maa ngi ndam bisimilah gëstu alhamdulilah. ñu ngi sama deuxième combat deuxième victoire incha allah soobee yàlla. ngay bëreeg ndaanaan muy caatu ngéwël. muy ndaanaan xam nga ko baax a baax. waaw caatu ngeewal xam naa ko mais maa gën rek ndaanaan li ma ko ñaan daal na dëggal boppam bu suulee amul fay amul fien na dëggal boppam dëggal bu soobee yàlla bu dëggal boppam ko daan ko incha allah lan lay jeexee ci bëre wala ci xeex waaw mën na jeex su lépp yàlla su borom moo xam mais préparé noonu lépp daal waaw ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam quoi incha allah bu soobee yàlla jërëjëf ndeysaan ñaar xale yi muy nanu bu Kër Massar ak xam si ni mooy xaddaafi bu joofu yor écrit tay ah ñaari xale yu mën a bëri ñoom am ci moom yaakaar ñaari xale yoo xam si ne ñoo xaw a tolloo gabari ñoom ñaar boo leen xoolee ay ndaama lan tolloo noonu gabari nag moom alaaji naa tey nga gis bëri bu neex xaw ma nag bëri ba waaye nag tolloo nañ gabari ma ne alaaji naa da nga gis bëri bu neex te gaaw boo moytul tey waaw loolu laay gis nag loolu laay séen ndax xale yi boo xoolee ñoom ñaar ñëpp kenn ku si nekk li nga takk bëriwul mu leeral na xale yi nar nga dëgg alaaji naar ma wax ne sbt média point com foofu la mburu mi tàngee ndeysaan alaaji naar géwal mbaay buur géwal ah tubaarkàlla alaaji maas ah ca dëgg dëgg dëgg daal nuyu naa képp koo xam ne daal yaa ngi abonné ci sbt média point com ndeysaan wala nga tapé 3w sbt média point com wala nga ànd na ñun suñu page facebook wala twitter instagram ba ci whatsapp bi jërëjëf alaaji maas nanu bu Kër Massar a ngi noonu di bàgg ñu koy jur ay gàllaaj fii ci arène nationale ñaari combat yi combat bii bi ak combat bu mag bi combat bu réeré doon. alaaji naar parrain baa ngi noonu di ñëw ak drapeau bi parrain baa ngi noonu di ñëw ci biir géew bi ak drapeau bi ndeysaan alaaji naar xale yi liggéey nan wallaay xale yi liggéey nan ah am na lu ko ëpp li de xonk na de. ay laay la bu ne gis. alaaji naar lamb daa métti de. gis nga sunguf su ko paa bi laa ilaaha illallaah. alaaji naat sunguf si sungufu fan la. ah xii na xanaa sungufu dimb la. alaaji naa loolu sungufu dimb man maa xool fii laa toll xam si sunguf si lan la. sungufu lan maas. alaaji kii sunguf si belewel ngel la. yeyee belewel ngel. belewel ngel la. laa ilaaha illallaah. xale yaa ngi noonu. alaaji naar. alaaji naar xale bi xale yi jekk nañ alaaji naar ma nga yor benn bale. ma ngi koy bale jëm ca moom xadaafi moo nekk noonu xadaafi bu joofu yor. cey lamb. écurie Tay Shinga. cey lamb. dajeeg xale bi nga xam si ni mooy nanu. écurie Kër Massar. cey ñaari xale yi alaaji naar. waa sa fere nag dañoo tolloo doole nag. ñaari xale yi tolloo doole lan. waaye am na ko samp ndënd. waaw ah. moo samp ndënd. Sadio samp na ndënd. Sadio nee na ñoom ñaari xale yi. ndeysaan Sadio ngay bàgg. laa ilaaha illallaah. oh. naa a laaj. man ma war a laaj. bu ñu weetee ma wax la ko. ah. ah. yow xam nga am na lu xew. xam nga am na beneen mbër mu ñëw daaneel jël ndënd ma. ndeysaan. sambal ko ko. mais kii mbëru ndaama la yow. yow kii du lekkam. nee na ko yow du man nee man ak yow. nee na ko cuuj du xam day xam lekkam. man ak yow. nee na ko cuuj day xam lekkam. la ngi nii alaaji naar. ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci biir géew bi ñu war a li nga xam mooy présentation bi combat bi dox ci ki nga xam se ni mooy nanu bu écrit Kër Massar ak xale bi nga xam ne mooy xaddaafi bu joofe yor écrit tay présentation muy combat spécial bi muy combat spécial bi présentation baa ngi noonu sun père Pamba ngi noonu borom géejawaay arbitre baa ngi xool ñaari mbër yi ndax diwewul loo xam ne dañ koy aaye ndaysaan cey làmb ji arbitre bu jigéen sax am na laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah arbitre bi nee na ko fëgg fëgg sa tànk yi am na suuf naysaan ñaari mbër yi dafa dañoo bokk foo xam si ni dañoo bokk tegtal Ah, arbitre baa ngi leen koy defal fistet laa ilaaha illallah combat bu rëy aa ah, kii nee na ko jaru ko ndeysaan nanu bu Kër Massar nee na ko jaru ko ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi arbit baa ngi wax ak ñoom arbitre bi ne ndax pare ngeen ma ngi xool ay consultant am ndeysaan ñaara xale yaa ngi na tekk ñaara xale yaa ngi na tekk ñaara xale yaa na tekk ci biir géew bi laay lay la laa nana bu Kër Massar ànd ak ki nga xam si ne nii combat bu rëy la écurie Tay Tay Singa ak écurie Kër Massar arbitre bi sifflé na ñaari mbër yaa ngay lewaatoo door na cokkaas la ñaari mbër yi ña ngay damantay baaraam laay laay la pat ma alaaji baas waxoon naa dina miti combat bu gaaw te neex ñaari mbër yi ma koy tex lu yàgg di tex lu yàgg ci lamb la ilaha illallah naa du waxoon naa oh, daan na ko la ilaha illallah oh. alaaji naar oh. waxoon naa la ko combat bi day gaaw. waxoon la combat bu neex buy gaaw lay doon. waxoon naa la ko. laa ilaaha illallah. day oh. laa ilaaha illallah. combat bi day gaaw day neex. laa ilaaha illallah. alaaji naar oh, gis naa pàdd. dex. laa ilaaha illallah oh. lan naa dex lu gaaw. la de guerre numéro un. laa ilaaha illallaah waaw ndeysaan ñaari xale yi nekk ci biir géew bi nag mooy ki nga xamante ne nii mooy jaasi pël buy écrit sumbi jum ki nga xamante ne mooy jën kayre moo ko andi waaye kan lay dajal nag ki nga xam ne mooy peleña bu Kër Massar mbooloo laa ilaaha illallaah ñaari xale yaan ci biir géew bi ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye mi nga xam ne moo yor micro central bi moo leen présenté ba pare ñaari xale yaa ci biir géew bi jaasi pël bu écri sumbi ak ki nga xam si nii moom mooy ñaa bu Kër ma saar mbooloo mu mel ni que combat bu nar a neex la nag waaw combat bu nar a neex la tubarkalla ñaari mbër yaa ngi si digg géew bi def seeni débat dépp fa seene leewaatoo waaw mu mel ni ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo gabar yi ñaari xale yi dañoo xaw a tolloo doole waaw que le meilleur gagne daal laa ilaaha illallah sbt media point com mi ngi noonu 3 double ngay def def sbtmedia.com mooy seen site internet boobu xew si jamono waaye seen seen YouTube ngeen def SBT Media ngeen abonné seen seen seen YouTube laay laay la laa ñaari xale yaa ngi ci biir géew bi. waaw ñaari xale yaa ngi si biir géew bi ku ne ngi def say débat def ku ne ngi wane sa bopp tubarkaale làmb ji daal tey du yomb du yomb. waaye ganaa combat bi ganaa combat bi combat si biir combat yi de. laay laay la ndax ki nga xam si ni moom mooy caatu ngéwal jógee yoof yoof kenn desul waaye ki nga xam si ne mooy fils de Sallo ñëw ànd ak mbokkam. baayam andi ko baayam def lu nekk ci làmb ñaari xale daal yoo xam ne daal ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa sa yoon. waaw tubaarkàlla ku sa yoon boo gisee caatu ngewal waa lébu yëpp jug nañ yëngu nañ tey andi ko nga xam ne mooy caatu ngewal waaw waa ngewal yëpp ni ko yow la te dañ ko nee nañ koo yónni yàkkamti ko nee na ndam ni lu mu guddi guddi guddi ngewal la jëm kii ni ko lu mu guddi guddi guddi dama koy yóbbu waa loo xam si moom tamit fils de Zallo. waaw noonu nga xam ne waa Yoff noonu la ñu andee xam si moom mooy caatu noonu la waa dakaar ñépp jog daal di si ci ki nga xam si ni moom mooy Zallo andi seen doom muy fils de Zallo fils de sallo nag nekk xale boo xam si ni am na benn xeetu bëre boo xam ne da koy bëre muy saaru fiir na ko caatu ngi war bàyyi xel ee ñaar xale yi mu mel ne daal alaaji naar daal moom mi ngi noonu rek waaw ñaari mbëri ñu ngi ci biir géew bi mu mel ka arbitre baa ngi taxaw di wax ak ñoom arbitre bi xool na leen ndeysaan jaasi pël ak ki nga xam se ni moom mooy peleña bu Kër Masaar mbooloo ar bi sifle na ñaari xale yi ña ngay ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo lewaatoo bi gaaw na ñaari xale yi la moo a am ñaari xale yi ñu ngay lewaatoo lewaatoo bu barabar macha ñaari xale yi ndax dóor mu daanu la ndax mbot la ndax xatar bi la ndax wéyale la ndax nooju la ci kanam tuuti nañ ci xam dara alaaji naar jaasi pël bu écri sumbi jum ak ki xam si mooy peleñaa bu Kër Masaar mbooloo ñoo nekk si biir géew bi combat de ay xale la ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp a yàkkamti. ay xale la ay góosut guddi gu raw. ma ne allah naan ñoom ñaar ku jum daanu. ku jum daanu ah. ah ñu ngay ndeysaan combat bi métti na. laay lay la laa Peleña Kër Massar mbooloo ak jaas yi pël écrit si mbijum mooy ju ndax nooju la ndax wéy la ndax xatar bi ay la aw mën am ndax dóorante yi bari na jàpp na ko jël na ko mu rasu oh ndeysaan ma nga jëm ci saako ya ma nga jëm ci saako ya ma nga jàppante ci kaw alaaji naar ma nga ci kaw bal ko ci kaw ma ngay dóor suuf ma ngay dóor ci suuf ña ngay dóorante ci suuf fayu na waaw waaw fayu ndax wër ndoom ma da na cee am waaw dóor fayu naar xale yi bi neex na lool combat bu neex la ndeysaan maa ngi nuyu na ko waa station tali bu mag waa ndeysaan ak ki nga xam si nii moom mooy Boy njaay ak ki nga xam si nii moom mooy Vieux hey allah naar ñaari xale yi ndeysaan combat bi metti nag waaye nag neexul ci ñoom ndax doorante bi ëpp na alaaji naar daal ñi ngi bëggee képp koo xam ne yaa ngi safoo sbt media point com ma leen di wax ne noonu la kon leen ngeen abonné seen seen youtube ba seen tous cloche notification dara du leen umpu laay laay alaaji naar ah, door ko xale yi ñi ndeysaan ñi ngay jam kaaw mën naa am ndax wéyale la ndax fàqat la aw mën naa am waaye am na ngemb ca suuf ndeysaan wéyale jaasi pël ak ki nga xam ne mooy pele ñaa bu Kër Masaar mbooloo bët na ko ah jël na ko xale yi mën nañoo bëre waay ñaari xale yi ndeysaan day lay xonte ay ku ca kaw hey alaaji naar alaaji naar nag maa ngi nuyu nag sama xarit alaaji naar dafa mel ni kaaw am jël na ko jël na ko jël na dafa mel ni kaaw am na kaaw am na ña ngay doxantu jëm ca booru saako ya ndeysaan hey alaaji naar mbëri lu ñu fay jar na ko loo ko na ko mbër rawatina mu ndaw hey ah! jël na ko ndeysaan xaalis oho jaasi pël ak yeexa suma may pele ñaa bu Kër Massar mbooloo xoole supporter alaaji naar waa suma jul ñu ngi nale taxaw waa vert blanc et vert blanc ndeysaan di nuyu nag sunu papa alaaji Boy Kayre ndeysaan sama xel dem na ci Boy Kayre ndeysaan xel dem ci Kayre Senior Kayre Senior ndeysaan suñu bis kaawo non ñu ngi rek ne combat mu ndaw moo gën a métti lu leen fay jar na laa ilaaha illallaah sama xel dem na ci Kayre 2 waaye ndeysaan ki nga xam si mooy jaasi pël ki nga xam ne moo ko indi tey mooy ki nga xam si ne nii mooy Diène Kayre ba defi combat bu rëy digganteem ak ki nga xam si moom mooy Quench bu bari ñi ñoom ñaar ñu mat si niil alaaji naar combat bu rëy ngi woon noonu waa ji le ndeysaan ndeysaan ñaari xale yi ba tey dara amagut nekk am na ngemb nekk am na ngemb nee naa ko dóorante boo calculé rek da ngay juum daanu. alaaji naar xale yaa ngi SBT. SBT media point com. na gaa yi abonné. ndeysaan. dara la ëmb. seen émission seeti mbër mi ngi ñëwaat. dina ñëwaat. su ko defee ñu seeti champion yi nekk si làmb waxtaan ñoom waxtaan ak Jean maa ngi nuyu nag sama xarit ki nga xam se ni moom mooy Sam Production ndeysaan nekk fële ca Caaroy di sama xarit yi nit ku baax ndeysaan tëgg na combat bu rëy xam naa fan yi incha allah la 4 avril la incha allah ci ñëw ak yéen mais xale yaa ngay door dem na oh, oh. ndeysaan ndeysaan mooy combat bu faas passé na loolu la waaw loolu la moom la. <laughs> mais booy mi ngi rokko suuf rek. mi ngi koy rokko suuf rek. xaw ma jaasi pël la xaw mais ku garaaw la. ndeysaan ku ne am na ngeen. xale yi bëri nañ bëri bu metti mais nag làmb noonu la. làmb nee moo ne géwél mënut a ñàkk ci làmb. ah sunu daan na ko wax. alaaji naar est-ce que a bu làmb mu saan toll fi daan géwél yi la ngay dégg. ndeysaan alaaji naar ñaari xale yi dina am ko ci door sama ramu daan boobu mooy tuddee. dëgg la ndax ndax dañu fa dañu favoriser xeex bi nag. épercule yii eh, alaaji naar épercule yii. ma ne ko dañu favoriser xeex bi nag waaye mënoon nañoo jëm a def technique tuuti. ndax nag loolu mooy moo moo mooy jeexal làmb. ndeysaan. cey ñaari xale yi lamb fa la waaye ku daan rus alaaji naar lamb fa la waaye ku daan wallaay dëgg la alaaji maas lamb fa waaye ku daan rus wax nga dëgg waaye xale yi kenn ku ci nekk instant ñi ngi def tactique nag ndax seen premier souffle dem na moo ñuy calculer bëre bi kenn ku ci nekk am na ngemb waaye ah Diassy Peulh mi ngi ci suuf ndeysaan combat bi metti na nag. alaaji naa Diassy Peulh war naa ñëw de ak maa ragal Diassy Peulh alaaji naar ak maa ragal Diassy Peulh naar Diassy Peulh war naa ñëw de waaye peleña moom hey maa bañ peleña naar bala nga xam peleña bon c'est peleña baaxul fenn man alaaji naar xale yi seen turu lamb yi xaw koy jëlee rek <laughs> ay jaasi bël ay peleña xam nga ne am na mbër bu tudd paxu néew ah alaaji naan du fa bëreeg moom ah loolu garaaw la alaaji naan moom <laughs> laa ilaaha illallaah arbitre bi na ñaari mbëri arbitre bi àtte na ñaari mbëri alaaji naar ah arbitre bi na dox na dox na avertissement nag ñaari mbër yu bëre ba génn saako ya avertissement waru ca arbitre bi sifflé waat na waaw waaw ñaari xale yi ñu ngi waaw dañ di ñaar ñu tolloo doole faaw seen làmb met dañoo tolloo doole wax nga dëgg ndey dañoo tolloo doole nag moo tax xam naa ni xeexu mbedd rek lañ koy xeex sànq ba léegi yaa ngi gis xeex ba ca kaw rek lañ koy xeex Alaaji Maas waaw boo xoolee ki nga xam si ne nii gars ñoom ñoom ñaar ñëpp dañoo am ginnaaw moo tax ay mbëri ginnaaw lan boo amee ginnaaw nag sa combat doo ko jël asaaloo ko. kenn bëggu na daanu nag. waaye foo jaar kenn yóbbu ndam li mun ta ñàkk. dëgg la. ndeysaan maa ngi nuyu nag ki nga xam si mooy Bécaye 2 sama xarit xaarim Bécaye. ndeysaan maa ngi nuyu Lamine Samba yooyu sama xarit yooyu ndeysaan du nuyu. media point com bi ndeysaan ñaari xale ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay bëre ca kaw oh ndeysaan oh xeexu mbedd lañuy xeex fi nii nag dañoo sonn fi nii dañoo sonn oh dem na dem na. am na ku ciy def loo xam ne gëmoo ko de ñoom ñaar am na koo xam ne xeex bi ñoru ko bëre bi la bëre bee ko ñor. waaye El Hadj Mass maa ngi nuyu baax sama xarit muy Thierry Ngoné waaye maa ngi nuyu Aziz Bisili Géel Bisili Cek Aziz Jinne maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ah door na ko de ndeysaan xeex na ko xeexu Modou Lo nag jam génn. laay laay la laa muy combat bu rëy dox ci diggante ki xam si nii moom mooy le champion le roi des arènes Modou xarañ Lo waaye nag war a daje kan le fils de Falaye sëll bu ndaw doomu Pikine ñu ne nag attention sëll bi léegi yëkk la muy bés bu rëy boo xam si nii mbokk Sénégal ñëpp a koy xaar àddina ngi koy xaar le promoteur de la continent tegu ko muy Luc Nicolaï Enco production di ko ñaanal yàlla suñu borom jëlee ko fa mu nekk ndeysaan. làmb gi noonu ñaari xale yi. amin waay li nga wax léegi. ndeysaan arbitre attewaat na. ma ngay naan ndox. ah. ma ne ko round d'observation bi nag. dafa miti. ma ngi daan gis si bu ñaan sañ tam néeg bu ñu saan sañ tam néeg dama daan gis ñu gas si digg néeg bi sotti ci ndox. waaw naar kenn ku nekk ñëw naan ci as si naan ndeysaan. ndeysaan alaaji naar lépp cosaan la. lépp cosaan la. la ilaha illallah. loo ngi doon di romb de. alaaji naar loolu dana ci ñëw ci kanam ñaari mbëri arbitre bi sifflé waat na arbitre bi sifflé waat na jaasi dafa mel ne dañoo baral combat bi nag. waaw ndax xam nga ñaari xale yi ñoom ñaar dañoo yàkkamtee ñibbi ndeysaan laamu daa metti ki nga xam si ni mooy jaasi pël bu écrit si mbijum ki nga xam ne mooy jën kayre moo ko andi waaye nag kan lay dajal xam ne si ni mooy peleña bu écrit Kër Massar mbooloo ñaari xale yi ña ngay ña ngay ña ngay demee wet ndeysaan alaaji naar ñaari xale yi ragal naa bu ñu jàppante waatee làmb ji jeex alaaji naar. bu ñu jàppante waatee làmb ji jeex. ragal naa bu ñu jàppante waatee làmb ji jeex. laa ilaaha illallaah bu ñu jàppante waatee làmb ji jeex. laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah door na ko de. kuubu dal. laay lay la laa jaasi pël door na dooraat na dooraat na jaasi pël dafa garaaw nag ay jab yu la yor ah ba mbaadu kaw du mbaa kaw du mbaa kaw du am oh combat bi metti na nag naar ñaari xale yi ñaari xale yi dañoo sonn avertissement ndax dafay. avertissement. la hey jaasi pël mu andi ci mbooloo Alaaji Naar. moo tax mbër entraînel rek. Alaaji Naar xoolal jaasi pël li mu andi ci mbooloo. waa Sumba Jul la àndal. ndeysaan Ardo. Ardo. Ardo. maa ngi nuyu nag ki nga xam si ne mooy buur géwal nekk sama wet borom RTS 1. borom émission géew bi. ndeysaan saan di nit ku baax di nit ku yàlla baaxal ak a baax alaaj naa daal géwal mënut a ñàkk ci làmb mënut a ñàkk ci réew ndeysaan naa lu ma tee doon géwal ndeysaan loolu laa bëgg lijjanti lan moo ma tee doon géwal buur géwal maa ngi nuyu baax a baax a baax su ma la déggee daal mooy daa baax ba mel ni baaxuk lem bu ñu baax ci baax waset muy baax baax jubali baaxeen baax di leen jaajëfal di leen ziar di leen wax ni làmb ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla seen jàmm yàgg. dëgg la Bourgueul. lan moo ma dee nekk géwal loolu laay laaj. man kay fi tool yi doon nga géwal ba tey ndax nii mën a gisee nii. laa ilaaha illallaah. <laughs> ndeysaan làmb neex. làmb neex. ñu ne ko làmb neex. ni ko ñaari bëri. xeex dara xeex. arbitre sifflé waat na jaasi pël bu écrit suma jum ak peleña ndeysaan Kër Massar mbooloo ndeysaan dafa mel ni foofu boy sey fa la ne la grand champion ñu ngi koy nuyu baax baax am fi ay ndam yu am solo nag ndax laaj naar bul fàtte dafa daan ki nga xam ne si nii mooy le professeur de Lansar muy Tidiane Faye jógee fa daan ki nga xam ne mooy Siteu daan ki nga xam ne mooy Diène Kairé hey ñu ngi koy nuyu de passage di nuyu champion yi nekk laamu làmb yëpp ndeysaan di nuyu Boy Niang bu écrit Balla Gaye di sama xarit ndeysaan du nuyu Youssouf Balla Gaye du nuyu Samba Lawbe du nuyu mbër yëpp rek ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo. xale yaa ngi lewaatoo waaye maa ngi nuyu baax monsieur lamin Gueye bu République des valeurs maa ngi koy nuyu baax a baax di nuyu ay collaborateur am ku ci mel ne Abdou Diop di ko ziar di nuyu Baara taaliba ña booba ah, laay laay la alaaji Mass. alaaji ma alaaji naar jaasi pël mii dara de. jaasi ji ñaw na de. jaasi ji ñaw de alaaji naar dafa mel ni tey na peleñaa moo am peleñaa moom. tey peleñaa moo am peleñaa tey. tey peleñaa yaa am peleñaa. dellu na ardo dellu na ardo. alaaji naar peleñaa am na peleñaa. peleñaa moo am peleñaa. laay laay la la ndey. ndey xanaa mosoo gis de. lii kay musuma kaa gis tey moom peleñaa lan andil peleñaa. la ilaha illallah. simbal tey andil na peleñaa peleñaa. yaa am peleñaa yaa waroon andil peleñaa jaa simbal waaye farda la andil peleñaa. peleñaa dem na Ardo. alaaj naar toog baa ngi signalé rouge. kii baa jàmm la. seet seet alaaj naar daal maa ngi nuyu képp koo xam yaa ngi nekk ci làmb. dëgg la muy promoteur muy CNC muy ñi nga xam si ni mooy amateur yi di nuyu nag le président des amateurs du Ndiagne Diécko Alaaji Naar. ndeysaan ñaari xale yi mel na ñëwaat nañ ci digg géew bi. ndeysaan. arbitre baa ngi doog bëgg a bi siffle na. ndeysaan maa ngi nuyu baax Gara Badou Gueye Masata Ndiaye Aziz Baye Aale Ndiaye du nuyu Baye Ndiaye Babacar Ndiak Masata maa nuyu ñoom ñëpp. jërëjëf Ndeye. lamb jaa ngi waaye Ndeye daa mel Ndeye Dóor de. Ndeye bàyyil Dóor. Ndeye foo xamee Aziz ba naan Aziz sama mag ay. combat ba jeex na oh, jaasi pël jaasi pël dafa dina ko jaasi pël. daan na bëre bi daan na daan. laa ilaaha illallaah. noo bëree ak moom ak noo gis si combat. gari bi commencé yaru yarlu mu dem bi mu andi si reewande man boo andee reewande maa lépp loo la ko ëppale. ko moom. man moom dama am dara lu dul fay sama mag bi yooyu na ma xaaj bu bëree bëri gars yi jàpp si moo tax ñii nii ñëw tey ñii aw seen fay waa Morolan ak waa Mbour kii moom aw ma fayam Ahmed Melax kii bi may babat ba léegi mu ngi sama ginnaaw. mbokk man mbayeen laa dëkk. Ah. waaw yow. waaw mais dogal ngay sama mbokk. waaw ah, noonu la kon ñoom. ñaanal ndam ak tawfeex. amiin boo demee gaan xam nga rek waa ji moom gaan moo loolu dafa yaakaar ne moom a dàq xeex man na ko yow bu dee xeex maa la ko maa la ko dàq man damay xeex man damay bañ a génnee xeex bi fii ba yeneen mbër yi a jël moo tax ma tempee ko nii rek gars yi mun a am dara yéen daal damay na ñaan rek ngeen am télé bu mag a mag a mag. amiin am ah. yan la seet. incha allah ñëwoon maa jóge mbéy defoon loolu nag boo defee loolu rek mu neex. naar xale yi ba njëkk a bëree ay xale yu am ginnaaw lañ xoolal alaaj naar stade bi kenn nekkatu fi. stade bi vide na. ndax ki nga xam si ne nii moom mooy jaasi pël tribune bale yëpp parce que moom la woon te gis bi mu daanee la ñëpp dem. waaye nag lamb ji war nañoo wax ci loolu nag waa CNG war nañoo wax ci loolu ku daan dem fan si club bi. ah alaaji naar fan si club nga wax de. mais loolu defarul lamb nag. déedéet alaaji naar fan si club wax amateur yi ñoo ñëwatul léegi fan si ñooy ñëw. il faut nga xam lool ndax amateur day toog ba làmb jeex parce que amateur moom li ñor mooy làmb bokkul ak ki nga xam ne fan si këram moom mbërëm rek moo ko ñor waaw. Ndeysaan dëgg la wax nga dëgg El Hadj fan si bi noonu lay demee. Daadu am na benn lëy boo xam yor na ko upp ko ki nga xam si ni mooy fils de Sallo Ndeysaan grand combat moo nekk noonu grand moo nekk noonu de Sallo ak ki nga xam si moom mooy caatu yoof ndeysaan caatu yoof a ngi noon am na ci lu mu taxaw am na ci lu mu taxaw am lu mu bëgg sottee ko ndeysaan fils de Salo ngi noonu si mina si daal ya ma ngay am lu muy def ma ngay am ay tànk yoo xam ne ma ngi koy dox ma ngi koy compté ma ngi koy compté ndeysaan caatu ngéwél am na butéel yu muy sottee ko cey lambu cey lambu alaaji naar ndeysaan Fils de Zalo Fils de Zalo def na da baay ba daan def yoot gim daan yoot ndeysaan def na ko ku doom deewoo ndeysaan waaye ànd cuuraay baa ngay jilli alaaji Maas <laughs> lee ak leket la ñu taal ci biir daa cey def li nga xam si nii moom mooy ah. xanaa cuuraay libaan la de xanaa. déedéet lee du cuuraay de. la la la lee sungu fa la. maa la ko wax alaaji naar. am na inde boo xam ne ñoo ngi koy yenn ki nga xam ne mooy caatu ngéwal. ndeysaan. fii de sax xar fa xuufa dekk de nag. ndax li gëj naa ko gis ci làmb. alaaji naar ñaari xale yi. ay xale yu lañ lañ yoo xam si nii kenn ku si nekk fa nga jóge cosaan ak aara dafa bokk. jëlal lale mel ni carabine la yor carabine kii daa mel ni carabine la yor di visé. ma ngay diir. ma diir. ma ngay diir alaaji ma ngay diir. alaaji naa li mu diir mbaa ko jam. Ah. lii met ak fetal. la te da rek. laa ilaaha illallaah. kee kii la àndal fii de Saalum la àndal. kii de mel na kuy kuy diir ab kéwél. laa ilaaha illallaah. maa ngi di daw. laa ilaaha illallaah ciy làmb. hey mbay déggal ma loolu rek. waaye alaaji naar bul fàtte combat bi nga xam si ne moo dox si ki nga xam si nii moom mooy Siteu ak xale bi nga xam ne mooy Papa Sow di combat bu rëy. combat bu rëy. combat bu rëy rëy alaaji naar Siteu ak Papa Sow. ndeysaan. hey lambu alaaji naar lambu hey lambu. waaye nag alaaji naar gàcce ngalaama président de la république ndax arène nationale léegi ñibbisi nañ ci arène bi léegi ñibbisi nañ combat yëpp fii la laay laay la léegi ñibbisi nañ ci suba suba sax am na combat fii waaye alaaji naar neuf am na combat ñu jaajëfal nag ñi nga xam si ni ñoom ñooy waa Medina ndax stade Demba Diop ku nekk xam na ne waa waa waa stade Iba Mar Diop nga xam ne lu nekk def na ko ci làmb champion yu bëri génn bëri nañ fa jógee fa daal di gërëm ñi nga xam si nii ñoom ñooy waa waa Demba Diop muy Grand Dakar ñaari tali lu nekk def nañ ko ci làmb tey nag ñibbisi nañ suñu stade bopp muy arène nationale ñoo ko moom fii ba 2 heures du matin bu ñu neexee bëree kenn duñu génn leen alaaji naar wax ndeysaan loolu Diallo bi ma ko déggee léegi micro loolu la wax ne li doon ñaan ay at yàlla dogal ko ma ne ko nag waaye nag sa doom moo moo fi tooyal xaftaanam yàlla dogal na ni li ngeen ko doon ñaan yëpp bëgg fee bëre ci arène nationale sa doom muy fils de Diallo moo fi tooyal xaftaanam loo ci xam xanaa bi bi bi nga foofu sax yaram daw na mu ne ma ndeysaan sama yaram daw na. ndeysaan alaaji naar alaaji naar dee ba déeb xar fa caatu ngéwal ak fii de Sallo am na am na xànc goo xam ne si nii solal nañ ko ko cey fii de Sallo ndeysaan xoolal Sallo mu ngi ci ba cey làmb alaaji naar cey làmb alaaji naar xoola sall loon ndeysaan sall yor na mbuus ma mbuus mbuus ma def butéel ya ndeysaan alaaji naar xoola sa xoola sama càmmoñ ki nga xam si nii moom mooy caatu ngéwal ànd ak ki nga xam si mooy Malick Niang la grand champion yoof xanaa alaaji naar xel ak dem na si keroog bi nga xam si ne nii Malick ma ngay bëre ki nga xam mooy Moussa Ndoye waaw waaw xel dem na ci bi muy bëre Ama Baldé ndeysaan bés bu rëy bis bu rëy nga noonu. laay laay la maa la ko wax alaaji naar signature de com yoo xam si ne yu métti face à face yu méttee métti. ndeysaan. waaye ñu ngi jaajëfal bu baax nag waa CNG. ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni def nañ ko. loolu làmb ni mu organiser rek. gis nga mbëri fa ñu nekk dañ leen a barrière. teg fa sécurité. ku war a bëre rek mooy génn génn géew bi. am na benn buy boo xam ne kii nga xam ne mooy fils de Sall yor na ko ñëw pour toj ko. ñëw na pour toj ko. xanaa moom na xudur xam nga xudur ah? maa xam ay daay daay lan la wooy maa maa la ñaan xoox <laughs> maa la ñaan maa la ñaan cunkoor. laay la la maa la ñaan cunkoor. alaaji naar. ndeysaan loo yor na benn butéel de xanaa mooy dernier butéel bi. ndeysaan waaye bul fàttali ne xoola caatu yoof ma ngay jàpp jàppal benn benn. alaaji nag ah timis jot na de day julli wala nu def. ah day mi ngi jàpp nag de xaw nak nag. laa ilaaha illallaah Fils de Zalo pare na. mi ngi yeesal de. Fils de Zalo pare na. Fils de Zalo pare na. Fils de pare na. ndeysaan ñaari xale yi alaaji naar ñaari xale yi alaaji naar. ndeysaan ñaari xale yi. caatu yoof nag ku nekk dafa jóge ci defet alaaji naar ndeysaan dëgg la laa ilaaha illallaah moom lañ moo andi moo andi mayaar du xaddi caatu yof moom laa dégg gaay naa ko mayaar du xaddi waaw mayaar du xaddi laa ilaaha illallaah dëggal nañ ko bàkk bu rëy nag mayaar du xaddi laa ilaaha illallaah ñaari xale yi tuus nañ moo tax mbër day am géwal bakk boobu bàkk bu rëy ah attention bul fàtte nag caatu ngéwél lan wax caatu ngéwél day doomu boor géwél nag ndeysaan ngeen boo yoof ànd ak Malick ñaa ndeysaan yoof yoof ay jàmbaar yàgg nañ faa feeñ maa ngi nuyu kon kenn koo xam ne kenn la ci man muy Samba Ndour di sama xarit nekk foofu ca tuuba le grand marabout Samba Ndour maa ngi nuyu sama waa kër maa ngi nuyu baax sunu xalifa grand Babacar Mbaye waaye maa ngi nuyu bu baax Thié boroom borom xol bu rafet bi nga xamante ni bàyyi Papa tubaar tubaarkàlla maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu bu baax sëñ njaag di nuyu nag sama xalifa muy Cheikh Mbaye di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Moustapha di nuyu Matar waaye di nuyu Xaadim di nuyu Bunaama Caat tubaarkàlla ñu naan ñëpp mas alaaji naar ginnaaw nuyu nga nag ñooñu man damay nuyu sama jigéen ñu baax ñooñu ca kër ga mu yaa asu ndeysaan di nit ku baax macha allah waaye di nuy nag sama chéri Adja Sukay borom caagri yu neex yi ak ngalax yu neex yi chéri Moustapha ba yaay si xaadim sama xarit su ma ñëwee des fois ma ñëw ma ñëw daal alaaji maay alaaji naar dëkk bi daal dëkk bi daal daay demee wet moo wër sama géer ñi alaaji naar dem seeti ku mel ni ki nga xam si ne nii moom mooy maam Thierno ah su ma demee fekk ma ko fa rek. su ma dëppee damay jaar ci ki nga xam ne si moom mooy sukkay mu defal ma caag rek soof wala mu defal ma ngalax wala mu defal ma fonde laa ilaaha illallaah puissance ba naawul de puissance ba naawul de. ah puissance baa ngi doxantu ci biir. puissance bi weex na waaye naawul de. jàpp nañ ko. jàppaat na ko. laa ilaaha illallaah cey lamb. ndax da koy naawalaat. cey lamb. ndax da koy naawalaat. cey lamb. ndax da koy naawalaat. cey lamb alaaji naar. laa ilaaha illallaah. cey lamb alaaji naar. Eh. association des promoteurs ki nga xamante ne mooy président Fatou Fall ñëw na. léegi. nag. léegi kon ñu présenté ñaari mbir yi su ko defee bu ñu paree ñu ngi leen di silence à la mémoire de Demba Mballo. ay ca ca ci nga ndeysaan alaaji maas ni bàgg war mbaam grand combat ngi noonu laa ilaaha illallaah oh xale ku juum ku ne indi supporter fils de Zallo fils de Zallo ak ki nga xam mooy caatu ngewal fils de Zallo moo ñëwoon ginnaaw ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi ne tekk di déglu arbitre bi ndeysaan maa ngi nuyu Malick sama xarit Malick borom CNC arbitre ndeysaan Malick arbitre sama xarit nit ku baax nit ku yàlla baaxal alaaji Malick dëgg la nee naa ko yow noonu ngay mën a mel ndax alaaji Malick la duppee ndeysaan ma ne ko alaaji Malick jàng ba rëy ne la ba sifflé ne arbitre bu jigéen mooy sifflé ndeysaan combat arbitre bu jigéen mooy mooy arbitré ndeysaan ñaari xale la waatoo caatu ngewal fils saani na saani waat caatu ngewal ana jëla tànk oh oh bul fils de Sallo xar na ko luy am luy am oh luy arbitre arbitre siffleel arbitre siffleel arbitre arbitre nañu déglu arbitre nañu déglu arbitre am na lu xew nañu déglu arbitre arbitre nee nañu sëggaat arbitre nee nañu sëggaat arbitre nee nañu jël laamul jël la amul. alaaji alaaji naan xale yi na lu rëy. xale yi bëri na lu rëy. laa ilaaha illallaah. ku nekk daal sóoraale sa supporter. attention attention xam ni ku laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah. mais xale yi bëri nañ bëri bu rafet. alaaji naar ñaari booy boole ñaari xale am ginnaaw mën a bëree. ndeysaan dëgg la mi ngi mel ni arbitre bi mi ngi bëgg a siffler waaye arbitre bu jigéen gis. Alaaji Naar Alaaji Naar ñaari xale yi arbitre siffler waat na ñu ngay lewaatoo fii ca Saaloo wan ñu ginnaaw caatu ngeewal jàkkaarloo ak ñun ñaari xale yi. ku yàkkamti combat daanu ku yàkkamti combat di nga daanu bëri bi métti na. Oh, mbaa dóor mu du am. mbaa kaaw du am. laay laay lallaa ñaari xale ya Alaaji Naar ñaari xale yi xeex nañ bëri nañ. fii de Sall wan ni ginnaaw caatu caatu ngewal ngem bo ngem lu xonq li ndeysaan caan ndak ah, o oh, ñaari xale ya ña nga jargandal ñaari xale jargandal nan oh, xale yi mënoon a bëri alaaji naar ñaari xale jargandal nan combat bu métti na nu combat tey laay lay lalla ñaari xale jargandal nan laay lay lalla ba def suuf ñaari xale ña nga ca saako ya ña nga ca saako ya ña nga ca saako ya gàlla ñaa ngay tekkeeku alaaji naar ñaari xale yi laay lay arbitre bi la ardo ardo am na oh! waay ñaari xale yaa ngi bëre waay liñ leen fayoon remplir nañ seen contrat xale yaa ngi bëre remplir nañ seen contrat remplir seen contrat allahu akbar hey fils de Zalo fils de Zalo fils de xale bi na ardo na bi dem waaye nag waaye nag waaye ndaanan la alaaji naar ñaar xale yu bëri nañ bëri bu rëy ndeysaan naar xoola Zallo alaaji naar trop trop combat bu neex la combat bu neex la waaw xale yaa ngi bëri bu neex moo gis ci expérience en tant que ancien champion waaw bëri bi naxante naxante la war a jeexee quoi waay mais ñu gis sa champion daal di bëri daanu mais ndax loolu consigne boobu yaa ko jox. non daanuwul de quatre dàpp ñoom ñaar ku nekk ku nekk dafa quatre dàpp. ah. ñii. loolu nga gis. waaw loolu la waroon bëriwaat. bu ko tegaatee ba Tamba wala kii da nga da nga gisaat ñu ñu ñu ñaar dafa def quatre dàpp. waaye combat bu dox ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante nii mooy Sarak muy Ama Baldé di doomu Pikine lan ngay wax ci combat boobu. a ñëwagul. ah ñëwagul. mais nag yàlla na yàlla may ñu fekkee ñu ñun a tal ko. waaw après des Assin waaw waaw Baye Fall ba mu jege rek. naan nañ ci seex waxtaan ñu nag yow. waaw bu soobee yàlla incha allah. moo baaxul consigne boobu laa koy jox. kon Fils de Zallo déggal consigne bi nga xamante nii sa papa moo ko joxe te yàgg bëre yàgg dégg daali ndeysaan ni ngi ziar bu baax a baax a baax. waxoon naa la combat bi du yomb. waxoon nga ko. ndax xam nga ki nga xam si nii moom mooy taatu taatu ngéwal dafa jóge ci defet waa yow yow nu ko yàkkamti ko. laa ilaaha illallah ñaar xale yi xeex nañ bëri nañ arbitre bi sifflé waat na. arbitre bi sifflé waat na ndeysaan daa mel ni caatu ngeewal toog na ci ay tànkam waaw waaye Fils de Sa Lô dafa mel tay dafa bi mu ñëwaat arbitre bi dafa taxaw dafa taxaw léegi mi ngi liir combat bi kenn du ceexaane sa combat laa ilaaha illallaah caatu mel na nag caatu caatu caatu ngeewal moo gën a bëgg combat bi nag ñoom ñaar xale yëpp bëgg combat bi alaaji naar ah, ah xeex nanu déer bu daan mën na am de ndeysaan ah Fils de Sa jël na ko waaye bal na ko ca kaw bal na ko ci kaw ndax dina dina koy wéyale ndeysaan oh ña nga jëm ca saako ya ku nekk am na ngemb alaaji naam saako du fekk ku fa dem yaa fa yóbbu sa bopp ndax wéyle la ndax fàqet la ndax nooju la ci kanam tuuti ci xam ndax xale yi songoon na jàppante nañ laa ilaha maa ngi nuyu waa Kangami Lamb groupe WhatsApp Kangami Lamb maa ngi nuyu ñëpp ndeysaan waaye demut jël sa suuf laa ilaha illallah na tànk ba xar la ko bëgg a def ah jël na ko jaxabal laa ilaha illallah oh tey ñaari xale yi alaaji arbitre bi nee nañ sifflé arbitre arbitre na nee ardo ardo Fils de Zalo day dem ardo ardo alaaji naar arbitre bu jigéen bi daal macha ma mën naa arbitre de tey tey tey lamb ndeysaan Sall fekk ko ci alaaji alaaji Mas ndeysaan Sall nee naa léegi xolu baay ak doom laa ilaaha illallaah alaaji naar xale bi taf nañ ko de nañ tafale woon Eumeu Sène contre Gris Bordeaux ah dëgg la borom tay laa ilaaha illallaah hey laay laay la laa alaaji naar ragal naa ne arbitre bi bu sibil waatee combat bi jeex de. dëgg la. ñaari xale yi ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk mérité nga ndam ndax wane nga fi lu tax ñu war laa jox victoire. ndeysaan dëgg la alaaji maas ndeysaan làmb bu tolloo fii. ni mbëri ñëpp a jaxle. waaye nag physique rek kenn ku ci nekk boo amee physique rek. mën ngaa jeexal sa làmb ci bëte ndeysaan mel na ni arbitre bi alaaji na entraîneur bi dañ koo changé Salloo moo toog ci banc léegi Salloo toog ci banc bi Salloo moo toog ci banc bi kon li ma lay wax léegi-léegi maam xool xoolu baay ak doom changement de tactique am na ndeysaan ki nga xam si ne moom mooy Salloo moo toogal doomam nekk coach bi fils de Salloo arbitre sifflé waat na sifflé waat ànd ak Malick Niang ak Fils de Zallo ñu ngi nuyu Père Thioune Père Thioune ñu ngi koy nuyu baax ndeysaan borom làmb ji bu làmb rafetee moom la ak waa CNG ñëpp du nuyu Père Thiam ñaari xale yi ña ngay lewaatoo ñaari xale yi ngay waaye géwél yi rek dégg gis nga ñaari tambour major yi Papa Ndiaye ay dëmb ñu ngi koy nuyu Papa Ndiaye ay dëmb doomu Pikine la. ndeysaan. ndeysaan alaaji naar. chéri kam. hey sama chéri. waaye waaye. xale yaa ngay léewtoo. waaye alaaji naar. nuyu naa nag groupe whatsapp soppe Serigne Saliou bi nga xamante ni Serigne Saliou Thiam sama doom moo ko moo ko jiite waaye nag di nuyu nag sama sëriñ nekk foofu yëpp. ak sama doom yi ndeysaan su ma tuddee sëñ Saliou Thiam sama doom damay mën a yóbbaale képp koo xam ne yaa ngi ci biir groupe bi di waaye nag su ma tuddee sama sët yi jigéen ñi su ma tuddee Aminta Thiaroy tudd Dial tudd Aysata tudd Soxna Ami Kolabaan ndeysaan dañ may yóbbaale ñi si den ñëpp ndeysaan ñaari xal yaa ngi lewaatoo ñaari xale jël na ko. jël ko jël ko fii si Saliou jël na ko jël ko ndaxte dina dem ndaxte dina dem ndaxte dina dem ndaxte dina jaxabal oh lay lay na la oh adrene suuf adrene suuf waa xale yi mën na la bëre waa xale yi mën na la bëre waay ñu déglu arbitre nañu déglu arbitre oh daan na caatu ngéwal daan na ko caatu ngéwal daan na ko nan ma jàppale ma dem tukki ñëw jël sama wàll si làmb ji Fils de Zalo dama koo duma maa ko gën a doon bandi man waga laa mbayaar laa mbayaar laa dégg ko xale du xaadi man mbay mbay tey jii nii lamb ji Fils de Zalo fi ma toll fi ma tolloo toll ku xam lamb xam ni bu doon damay bàyyi rek damay daan mais lamb bi tey jii nii bi may génn barki damaa jooy non yéen a xamul loolu sama waa Ikiri xam nga ku contre ay kii nii yàq mi nii kii maa ngi koy gërëm gërëm Mbambilor fa laa pere lamb ji ba tey maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax waaw sama xarit la barki Seydina Mouhamad non sama tànk man damaa mën a bëre suba ñëw leen Yoff seet si voilà mbokk yi doon seetaan sbtmedia.com ci lamb ji nga xamante ni moo amoon ci arène nationale ci diggante caatu ngéwël ak ki nga xamante ni mooy Fils sa Zallo yàlla dogal nag ki nga xamante ni mooy caatu ngéwël daan ki nga xamante ni mooy Fils de Zallo jël bu amul benn werante ci combat boo xamante ni nag combat bu métti la vraiment ñaari xale yu bëri nañ bëri boo xamante ni tubarkalla bëri nañ bëri bu metti xeex nañ remplir nañ seen com seen kenn contrat kon nag ñi ngi jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo doon seetaan li nga xamante ni mooy sbtmedia point com di leen jaajëfal ci euh, làmb ci li nga xamante ni mooy làmb ñi leen jox dig dig daje nag ci beneen combat ci beneen euh, grand combat fii ci arène national ku ne xam ne suba am na combat maa ngi yow suba incha allah fii yow mi nga xamante ni yaay abonné fi nga xamante ni mooy sbt media point comme xaar ma yu tàng rek laa lay jox incha allah waaye maa ngi gërëm bu baax Mass Ndiaye mi nga xamante ni moo newoon ci caméra bi di ko bëggee bu baax di bëggee ñëpp ñoo xamante ni ñoo doon seetaan li nga xamante ni mooy sbt media point com di nuyu nag sama xarit muy ah maam Thierno Ndiaye borom complexe Serigne Dame Diouf Lambaye di ko bëggee bu baax sama xarit di bëggee ñëpp waa Pikine di bëggee àdduna di bëggee ñi safoo làmb ñëpp ñu ngi leen jaajëfal yàlla na ñëpp am jàmm